السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي بكي طالبي بكي جلدي بكي دكنوي نيو يعني زياره ci waxtu yi ñu toll waxtu yi nag dafa laaj waxtaan waaye waxtaan bi nag moom mooy addiinu nasiha boobu rek la jëm li fi xew démb ci guddi ñu ma ko euh, fa saasa ci mbetteel ga joxe ci ay kàddu joxoon digal ne ñëpp dal te dellu seeni kër te ne teg su ba ma xam lii fu mu jógee ak nu deme bi ma xamee fi mu jógee nag ak ni mu demee

ki fi nekk xamoo lim fi bàyyi loo ah, neex man nga ko fee nekke waaye loolu nag kon ñun ñi fi nekk war nañoo dellu ci suñu bopp seetaat bu baax euh, sunu nekkin euh, ci barabu bu sell bii feetu ku baax ku sell kii mën naa demee noo xam ne a góor amul jigéen amul gone amul amul mag amul ndaw ñëpp war nañoo yëg li ne ci dëkk bi ndax ki fi nekk kon ñàkk yëg li fi nekk ñàkk xam ki fi nekk ñàkk xam li mu fi def ak nim ko fi defé ak li tax mu def ko fi loolu mën na andi lu demé ni li xew big ndax ñaka xam ñàkk xam nak ki xamul da da nekul mom rek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 لا لات سيني سيني خال تيو تي تي لول موي لي اف زك بي دا كين كون ريك لاغا ام سي سيرين بي داينا تشير داني سويتاس موي نجا كون بو امي ني خمول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 bëgg fee nekk di yàq loolu ñi xam ñi fi nekk duñ ko mën a seetaan kon dëkk bi ñi fi nekk te xamuñu nekk feeg ñàkk xam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 bëgg bëgg bëgg a bëgg aar dëkk bi ci loolu waaye yàq gii nag day yàqute gu rëy goo xam ne moo gën a metti yàqute yooyu kon nag ku fi nekk te sa xel nekkul ci lu yàqu ak yàq ak yàq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 lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xel lu nit nit nitoo diku nitoo diku war nga xam ni barab bi am na xorma joo xam ne kenn ku ne waxuma la sax ñi fiy nekk waaye ku sax xel dem ci Tuubaa rek jàpp na ci waatuwaa nga bokk war ngaa sa lépp war nga ci jiital xorma dëkk bi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 amul kenn kenn ku ne war ngaa bàyyi sa xel ci loolu jéem a jox dëkk bi xarmaam ji nga ko war ji ji mu yellool ji nga ko war a jox euh, yàqu yàq yàq démb gi moom xëy na yàq yu bari mën na am yàgg na fa am mën na loolu ni yàlla binde dooy dig doomu aadama waaye nag jug di yàq si ne maa tey loolu kooku moom du luñ mën a seetaan ndax maa tey rek la ndax weddi baatu kilifa loolu maa tey la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 wéy ci kilifteef dëkk bi borom dëkk bi ma ngi fi bàyyi na fi ñoo xam tam itam nag ñoo fi nekkal war ko fee nekkal ci na ko bëggee warko ko nekkal sàmmal ko aaral ko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 te sëriñ bi boroom moo ci jëfe sañ-sañam lépp lu baax lu ñu mën a yoo mën a jëriñoo ci àdduna wala ñu mën mën koo jëriñoo ci àllaaxira lépp ngi sëriñ bi kon nag bu amee tawfeex ndax xamuñu lu ko may waaye am nañ tawfeex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 di àgg ci maa lu mën a nekk kon nag euh, euh, euh, noonu la demee manes na koo wax waxin bu gën a woyof ndax ku xas dugg ci dëkk bi rek moom am nga am nga am nga am nga am nga am nga xéwal ba noppi ndax dëkk bi wax ju tedd ja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 kilifa yàlla koy def kon kilifa boo defee wartifam ñi ki lu mel nga xam ni moo moo fi moo ci jamono jii ñu toll man duma dara waaye tudd gi ñu may tudd di tudd Sëñ Tuubaa nag tax na il am naa wartif am na sama am na wartif war ci man loola nag mosuma caa jóg te boo ca nekkee ñëpp ko bokk la ma ci la ma ciy wut ñëpp ko bokk gis ci wàllu diin ji man moo mooy sama mooy sama liggéey bi li bi mu xëyee rek doona ci ay jéego yoo xam ne ñi yàlla jo dénk sa jox sañ bi ak sama digënté ak sama diine sama digënté ak sama borom sama digënté ak Serigne Touba taxna def na ci ay jéego yo xamné xañuma len li nga xamné pexe yi nga xam bi nga xam ne moom moom la ñu am ñom lolu yakaluma len ko waye nak amna nu ma ko gisé no xamné alhamdullahi rabbil alamin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 sédd nañ ko loolu ci la nekk ba ba ba ci la ci la ba mu tàmmee ba tey ci loolu la nekk ma ak ñoom kon nag bu bu ñu toogee ba ak lu mel ne jëye ji am ay ay ay nit jóg rek di defe maa tey di wax lu neex def lu neex loolu dana dana il faut que loolu moom loolu xew-xew la il faut mu jóge nu kaw. loolu nag eh, la ko andi moom il faut que ñu jéem koo xam te ko jéem a faj te lu yomb la ndax nit ku nekkul ci dëgg yomb ah, ku déglul ci wàllu ci ku déglul sa ndigal kilifa ci wàllu diine gi dégluwoo sa ndigal kilifa ci wàllu adduna ji kooku sa mbir day yomb dal ci sa day yomb lool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 du yàgg du yàgg lekkoon naanoo moom euh, di mbooloo mbooloo mu lekkoon naanuñu loolu moom ñoo ñoo kon nag bu ñuy daw <laughs> daw corona yi jëm ci <laughs> jëm ci jaay jaay xaal ah, kon loolu amul solo loolu loolu da nga loolu amul solo nañu nañu nañu dellu ci suñu bopp ñi ñëñu borom jàmbaar ji jàmbaar ju rëy ji fi nekk kaw ak nañ ko doyloo nañu góorgóorlu delloo sunu bopp du ñu dara dara yàdduna du ñu ko yàqal xanaa dañu koy defaral kay barkeeloon ko waaye nag balaa loolu am it dafa dool day day wér il faut que il ju dellu suñu lépp delloo ko yàlla loolu mooy mooy mooy suñ suñ suñu lépp teg ko ci loxo bi loolu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 maa ngi jégalu bu baax a baax eh, wax ji eh, lu ci tàngit dëgg moom neexul waaye fekk na ñëpp jàmm rek laa leen laan laan li ma bëgg sama bopp rek laa leen bëgg li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene waaye nag yàlla sa yàlla ko defee noonu yàlla moo ko tërale noonu waaw wu nag yoon wii moo jëm ca mbaax bàjj na yoon wii mooy safaan ba ko war a xam daal di jug teel ci jug ca teel góorgóorlu suñu bopp suñu kem kattan buñ ko defee rek yàlla suñu bopp moom moom mu dimbalenu rawatina nag di ngeen ko xam ne eh, am nga tawfeex yoo xam ne suñu borom dana boole sëñ Tuubaa muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem kon eh, nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax eh,